salaatu lazi fi kulli sarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web TV Al Azhar Touba ñëwaat nañ ci seen émission euh, Al Academia di spécial màggalu Touba fas yéene euh, kem niñ leen ko waxee woon rek su màggal jubee Al Azhar Touba naka jekk da daan ittewoo dajale borom xam-xam yi euh, di daje wut ay thèmes yu am solo waaye <clears throat> bu màggal jotee jubee dafay gën a ittewoo loolu ba tax. di invité ay boroomi xam-xam yu gën a bari wut tam ay thèmes yu bari yu aju ci euh, euh, njàngaleem sëriñ Touba ànd kook ñoom euh, tey nag ki nga xam ne nii moom lañ ci àndal mooy Serigne wu géey di mm, boroom xam-xam yore daara di yarkat di taalifkat di di di di bindkat di ki nga xam ne sax mooy jàngale téere boobu di Miras ci Al Azhar Euh, waaye mbokk yi bala ñuy ñëw ci moom ñu wax leen rek ne euh, ñi ngi ànd ak sunu sponsor spécial et principal muy Kool Touba Kool Touba nag nekk compagnie boo xam ne nii dafay jàppale Al Azhar ci Al Azhar Touba ci liggéeyam muy compagnie boo xam ne nii lii liggéeyam mooy dafay distribuer crédit crédit boo xam ne nii man mën nga ko jëndee ci Orange mën nga ko jëndee ci Tigo waaye itam foo mën a nekk ci àdduna bi. mën nga ko fa jëndee à travers l' internet kool touba point com moom la ñu àndal ci euh, ci émission yi mu ñuy jàppale ci loolu kon mbokk yi nga xam ne yéen ngi bàyyi xel seen web TV Al Azhar Touba te am yéene ci Al Azhar Touba ku man ngeen a jëndee ak compagnie boobu di kool touba fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi man ngeen a jëndal crédit seen xarit seen wayjur seen doom ak ku ngeen bëgg a jëndal crédit ci seen i xarit loolu lu am am solo la kon sëriñ Euh, Saliou Guèye ginnaaw bi nga xam ne nii ñu ngi lay nuyu di la euh, ñu ngi lay bàyyi nga joxal sa kàddu njëkk bala ñuy ñëw ci laaj yi nga xam ne nii tànnoon nañ ko. auzu billahi samiihil aliim min sharri saytaani rajiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa kon euh, mbokki jullit yi ñuy déglu ak mbokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyub lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziare bu baax ci weer wu tedd yi ñu tàbbi te mooy weeru safarul mubaarak di weer woo xam ne lislaam am na ci ndam lu rëy yi ndax taw tawxiid it am na ci ndam lu rëy rëy ndax jaamub yàlla la bu jógoon fekkoon fii ñu bëgg samp seen dënd ni yàlla. Ah, di di israak di ne ci leneen ak yeneen moom mu lànk loolu kon tawxiid am na ci ndam lu rëy lislaam am na ci ndam lu rëy kooku di sëriñ Tuuba bokk ci eh, li alxuraan wax naan rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila weeru itam eh, saa bu teroo jullit ñi di defee ak ni ko euh, mbokk taalibe bi yëpp di defee ñii di jàng alxuraan ni mu teroo ba ni ñuy àgg ci saamina asar googu waxoon xoon li xidmatil muxtaari fi sëri safar kon bu jotaay yi bokk ci jotaay yi ñuy waajal ngir di ko teertoo weer wi sëñ Abdoulaye dafa waxoon ni euh, ba muy annoncé am màggal gum doon yëgle di wax naan ko kenn ku ne kenn ku ne xam na ni bu amee gan gum fonk bu ko séenee rek dafay daal di jug gàttandu ko bu demee bay dem itam du ko toog du tàggook moom wacc ko mu dem déedéet da koy daal di gunge ba fa mu mën a yem mu yem fa ak moom kon weer wi wax dëgg yàlla jullit yi ak taalibe yëpp ñu ngi ci posté fu taxaw ci di ko teeru te it bu ñuy tamit di ko gàttandu kon daanaka weer wi teeroo benn fan safar ba fukki fan ak juróom-ñetti ya wala ba fanweeri fani safar di jeex sax weer yëpp wax dëgg yàlla dañ koy màggal tey du ko du ko jar la ndax ndamuk lislaam la ndamu yoonu murid la kon jërëjëf Sëriñ Lamine kon ñu daal di sof ñu daal di sof dugg ci waxtaan wi. jërëjëf sëriñ saalew ñu fas yéene dugg ci waxtaan wi wax fas yéene waxtaanee ku tedd ki nga xam ne mooy xaadimu rasul ak dundam euh, moom mi nga xam ne nii euh, ci ay bisam lañ nekk muy bis bi nga xam ne nii ci la liggéeyaloon boromam ba boromam fayeeku lu kawe njortam lott ci cantam tax mu woom jullit yëpp rawatina mbokki taalibe ngir ñu sant leen ko boromam kon tomb bu njëkk bi ñuy laaj ci moom mooy. umpule wuñ ne euh, sëriñ Touba bi mu ñëwee am na lu soppi na lu bëree bari wala mën nañ ne soppi na lépp ci doxalin wi nga xam ne nii laata muy feeñ jamono amoon na ci diggante alquran ak xam-xam ak nekkiinu boroom xam-xam yi jamono yooyu kon xam ne ni soppiku gu mag am na jóge ci li ñuy wax négativité ñëw ñëw ci positivité kon ndax mën nga ñoo wax njëkk feeñuk Serigne Touba borom xam-xam yi ak alxuraan ak xam-xam nu meloon ci jamono yooyu. waaw ah, jër Serigne Lamine ci sa laaj boobu nga laaj kon ku ne xam na ni ah, Serigne Touba ah, li njëkk muy feeñ ci saahir ci jamono daa nekkoon jamono ju day waar la ndax jamono yu nguur la ak ndam ak naxaate ak jaay doole maanaam di doon jamono yi ceddo ndax alxuraan sax daa ko wattu waaye dañ ko daan puukarante ak di ci njabarante ka xeex nga xam ne euh, ñii daan nañ ko wattu waaye niñ ko waxee rek njabarante ka xuloo ka ak di ci de taaxuraan loolu euh, sëñ Sam daana ko wax naan lo ñii ne ci penc ma di eh, kii ci alxuraan ji di ndamonte ci alxuraan ji léeg ku gàkk baa nga taxaw baa nga ki ñoo naan rëppeeru nga dee bind gestu baa nga dëkkee nafar di ko wayantoo di ko taaxuraan kon xool alxuraan yàlla ji noonu ñu ko daa def xam-xam itam amoon daawuñu ko jàng ngir yàlla sunu boroom dañ ko daan jàng ngir eh, di ko dara woo loolu sëriñ musaaka Ka mi ngi ci junju dara ci loolu ci jazaawul sukoor naan lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowwu jant fépp mel ni làmbaay eh, kenn amatul xasdu li wàccillaahi kaa ngi ak i fóore faf di jaanillaahi waaw kaa ngi fóore di jaanillaahi eh, fóore yi am xam-xam ak kaa ngi mokkal alxuraan di mooy yàlla kon loolu jamono yu doy waar la woon nga xam ni di gënoon doon daraja jamono yooyu mooy doon buur wala ngay mbokkam buur wala ngay ab dagam wala ngay attekatam su ko defee nga mën a mucc sa ñooñ mucc sa waa kër mucc boo sosee ci buur taq ci buur daal di morso di sagar bu ne bu sosu ci buur daal bu ko defee na nga mën a musal sa bopp musal sa njaboot kon loolu daal lañ defoon muy daraja loo seet ba xam buur la mu bëgg wute naag sa bëgg-bëgg sa bëgg-bëgg borom wala wala ji wala ji dëppoo naag moom tey laa taaŋaata li xaa li maqluuqin fi masyatil xaaliq loolu nag ci kanam tuuti sax bu ñu ci duggee ci tukki géej gi looloo ko waral Sëriñ Tuubaa dafa ñëw fekk ñee jaamu yàlla yi doyee dañ bëgg a ñëw ni lu ñu wax a fi am Sëriñ Tuubaa ni déedéet ki leen bind te bind ma la mu wax rek kay am looloo ko yóbbu fitna gépp nga xam ne fitna googu tey moo mujj doon bànneex bu ñuy bànneexoo tubaab yi itam yilif réew mi am fi doole lool nit ñi ragal leen lool itam ah, ba àgg ci gis ab tubaab day mel ni ku gis malaayka loolu la Sëriñ Tuubaa di junj naan wa minhum man Euh, man qadar man indra an nasraani yaxsibhu min malaayika rahmaani waaw ku gis euh, tubaab day mel ni rek ku gis euh, yàlla ndax tiit nga xam ni ab tubaab buñ ko mësaa gis dañuy dañ ko ragal ci seen alal ak seen njaboot kon jamono jooju alxuraan ngi fi woon xañ na xam-xam a ngi fi woon waaye nag yéen a lu toon te innamal a'maalu binniyaat kon wax yàlla ni li njëkk lislaam di ñëw daal mën nañ ni li mu fi fekkoon mooy lu lëndëm kiris te mooy lislaam fu mu nekkul rek ak lëndëm a fa nekk waaye njëkk sëriñ Tuubaa di feeñ jamono itam ndax wax dëgg yàlla takk ndeer yonent bi la alayhi salaatu wasalaam njëkk mi feeñ jamono itam xañ na lislaam a ngi foon waaye xawoon naa raaf moo tax ba mu ñëwee ne wa sunnatuhu insa arabi ujaddidu wa sunnatuhu insa arabi ubayinu sunna si laa bëgg yeesalaat laa bëgg a xaccaat mu ñëw moo tax li sëñ Saam daan wax sëriñ Tuubaa sosut dafa sof sëriñ Tuubaa sosu fi lu yees dafa sof diine sax nanguwut gan loolu dañ koy wax kon jamono jooju daal njëkk sëriñ Tuubaa di feeñ jamono jooju noonu la demee woon jërëjëf sëriñ Lamine. jërëjëf sëriñ Saliou Guèye ci tontu lu am solo loolu loolu leer na ne kon nit ñi ci jamono yooyu ni ñu waroon a jàppee alxuraan <coughs> ak xam-xam ak sunna ak itam ni ñu waroon a comporté woo desoon na bu baax a baax ndax naam amoon na waaye nañ ko doon defee du nii euh, andi nga ci waxi sëñ Moussa Ka wax na ko ci jasaaw sakkur am na fu naan ñale di tox di foon ñalay doxaan yi xam nga loolu loolu du jëf ju baax ñale di ba ñale di wàññilu ñalay bandaani yooyu yëpp ay xeeti eh, xeeti caaxaan la xeeti fola am na fu mu ne kenn amatul xasdu li wajhillaahi kaa nga ki fóori faf di jaanilaahi kaang mooy ku mokkal alxuraan fóori mooy ku am xam-xam ñooñu fas di di di di di mooy yàlla loolu tam Euh, mu teg ca Seex ba daal di ñaan ci barkeb jiili ne ma ne yàlla maay chafion kulli jiili maay xaadimu rasul fii sudaani maay ramu xarnu bi ani niiraani muy lu am solo nga xam ne kon leeral nga ci bu baax ne daal amoon na fu ñu nekkoon foo xam ne nii du fa te bi Serigne Touba ñëwee moom moom euh, defar na ko ba mu baax. Euh, kon ñu jàll ci beneen point bu am solo ndax jamono yii ñu nekkee ci màggal gi ay milliers de personnes dañuy màgg xam nga xale bu juddoo màgg. Euh, yow mi màggoon xam sëñ Touba moom xam nga ko liir nga ay téere waaye xale yi door a toll ci ndaw di door a jàng di dégg nag te gëstoogun ci sëñ Touba ndax mën nga joxe référence ci ay téere yoo xam ne nii taalif ne ko ci sëñ Touba nga xam ne boo bëggoon a delluwaat ci xam kan mooy sëriñ Touba mu yomb la. Euh, jërëjëf sëriñ Lamine euh, ci sa laaj boobu kon sëriñ Touba bëri na lool téere yu nettali ci moom. waaye yi ci ëpp arab la yenn yi wolof la euh, xaj na nag ñu yees ñi fii ñu ngi taalif ay téere yooyu yooyu ñu taalifoon ñu mag ñi taalifoon ci arab am na ñu koy jël di ko traduire ci anglais ak ci français am na sax ñoo xam ne jot nañ ci bindi téere ci dëkk bi ak euh, ni mu avancé waaye it wala ñoo bind wala ñoo was ci dëkk bi danañ wax ci borom dëkk bi ak fa mu sosoo ak ñi bàyyi ko bokk na ci xamsatu jaxate moomu mu soxna Mariama jaxate bi si Abdul Ahad am na téere bu ko taalifoon bu yàgg ci français la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci bay seenu laaj am na ku ñu wax Mouhamadou Abdullahi al Alawi moom defa ci téere bu yàgg boo xam ne jamonoy Serigne Touba la moom la ñuy wax al minahul miskiya fii siratil mbakkiya bokkut bu Serigne Modou Lam Diop Serigne Modou Lam Diop moom daane al minahul miskiya fil qawaarixil mbakkiya moom ci mujizaati sëriñ bi ya xewoon ca Mbàkke moom la moom moom moo tax mi wax waaye bii moom Mouhamadou Abdullahi al Alawi moom moo ko taalif téere bu neex la ndax. lépp ay sàcc la sàcc mooy ne alxuraan bindoo bindee mooy daaneel yëpp nduroo maanaam yi neex la ko la ci wax sëriñ bi liir na ko ne ni njëkk mi muy làq wuy ji boromam waaye moom it arab la ba tey sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana taalif na ci téere bu siiw boo xam ne neewaane bu ko gën a jotal moom la ñuy wax irwa un nadim min azbi hubbi cheikhil xadim ba tey moom it arab la moom it neewaane bu ko gën a jotal jamono bi moom nan moo njëkk a àggal sëriñ Basiiru sëriñ Basiiru gannaaw gi li bay sëñ sëñ Modou Lamine di bind fekk na sëñ Basiiru ngi bind bosam ci njëlbeenu téeréem sax moom sëñ Modou Lamine la rek euh, maa ngi mbir maa lay ñëw mooy la sama doomu di bind muy sëriñ Basiiru bu téeréem boobu bu ñëwee mooy mooy doon xare bi waaye lii lii lancement la na ko yàlla àggale bu fekk na sëriñ Basiiru ngi taalif sax moom dañu Minanul Baaxil Xadim fii maasiri Seyxil Xadim waaye bi Sëriñ Muntaxa mujjee mool te Sëriñ Mustafaa Basiru moolal ko ñoom dañ naan fii siirati Seexal Xadiim ba tey bu Sëriñ Basiru boobu téere bi jotala la sonn na ci lool wax dëgg yàlla moom it arab la te gëstu na sëriñ bi jamonante na ak moom xam na ci lu bëree bëri traduire nañu ko ba tey ah, ci net ne ah ba tey sëriñ baara nee nañ taarif na ci téere boo xam ne arab la moom sëriñ baara ba tey itam sëriñ mahamadul mamoun ñang ah, taalif na ci ñaari téere benn bi moom la tudd an nahjul qawim fii sirati seexil xadim benn bi moom la tuddee jaay-jaay borom Touba boobu yi moom wolof la euh, ba tey sëriñ Abdourahman Lo mu sëriñ Moustapha Lo taalif na ci téere bu tudd ak zikral mi awiya li naf yi Cheikhil Xadim waaye moom ba tey ci arab la sëriñ Moussa ba tey na taalif na ci téere boo xam ne jazaawu sakkoorul bi sëriñ Touba bindoon moom la way ci wolof tuddee ko jazaaru sakkoor bi ñu miin géej gi ak jéer gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen Galaye Ndiaye moom mu nekk Belgique di professeur foofu ba tey taalif na ci téere wax ne yàggut a génn xaw ma sublu salaam xaw ma sabilu salaam na ko tuddee ak eh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi taalifi téere moom daal wax yàlla eh, nitu yàlla nag moom bu fi jógee xeeñ ci xeeñ ci saawam xañ na sax eh, faw nit ñi def ko te duñ ko sañ bañ ndax yàllaa koy xamle kon sëriñ Touba daal ñi nga xam ne sax barki démb mooy jaay lañ dugg ci diina ji. sax xam naa ne ñàkk boo gëstoo ci net bi du ñàkk nga gis yoo xam ne ay tubaab yu jébbalu barki dem mu njaay donc rawatina waa kër yi Cheikh Mouhamadou Mourtada al mujahid al akbar yi nga xam ne jot na leen wom ma dugal leen ci lislaam ñi taalif nañ ay téere yu bëree bëri ci moom ci anglais ak ci français ak ci na langue kon téer yi xam ne ci sëriñ bi daal bëri na kon yaakaar naa moo taxit ku ne xam na ko foo dem itam xam nañ ko ndax yàlla ko xam xamle yonent bi it moo ko xamle kon nëbbuwut làquwut kon yàlla na yàlla royloo ay saawam royloo ñu ay jaar-jaaram waaye lu ko nëbb lu ko koo xam ne jant la bu ni dàng daal boo xam ne neex naa xam wax dëgg yàlla jërëjëf sëriñ la jërëjëf sëriñ Saliou tontu li leer na yaakaar ne mbokk yi am nañ ci euh, lu kawe seen jortu kon gis ngeen ne euh, sëriñ Saliou li mu wax mooy mboolem téere yi nga xam ne taalif nañ ko ci sëriñ tubaa waaye yu ci bari arab la kon yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi ñuy déglu te tam man ci wàllu traduire ci français wala ci anglais ndax xam ngeen ne sëriñ Touba mbiram. dafa nekk lu universel lu yaatu loo xam ne nii du waa Sénégal rek ñoo ko moom waaye tubaab yeeg ñëpp yeneen xeet yeeg chinois yeeg ñëpp ci wa ñëpp ci yam ndax njàngaleem war naa àgg fu ne kon yéen ñi ci am man-man am ci kàttan euh, ñi ngi leen di ñaanit ngeen jéem a mm, ñu booloo traduire téere yooyu ndax mu joti fépp ci àdduna bi ba ñi nga xam ne nii ñoo ko bëgg a xam te du ñuy sénégalais mën koo xam ndax bu dee ci arab rek xaj na ñi jàng araab rek ñoo koy xam euh, jërëjëf Serigne Saliou ci tontu lu am solo loolu kon ñu jàll ci beneen question rek bu am solo itam ndax mooy question ndeyu mbill gi mooy Serigne Touba ci boppam moom lañ bëgg nga leeralal ñu ak ñëwam ci àdduna ak way juram yim jaare ak seenu askan. laaj boobu euh, tomb la boo xam ne daanañ ko mën nañoo wax mooy rub lubbul mawdoo ndax euh, sëriñ tuubaa nag kon mu ngi gën àdduna ci Mbàkke Bawal loolu moom bindkat yëpp maasa nañ ci waaye fan la ci Mbàkke Bawal buñ ci duggee xaj na du ñàkk a wuute moo tax kon jëruñu ci ñu ciy xuus Euh, loolu mi ngi doon atum 1270 hijriya muy atum gàddaay gi li ñuy wax atum wolof loolu itam bindkat yëpp it maase nañ ci am na sëriñ gi wax ni sëriñ Ousmane Alfouti Tarale yi ba mu koy taarixal dani xad wurida al qadimu man qad saraa sariata al muxtaari aama saraa waaw teg ci ne wa qiila inna umruhu maalu litalmuna wa sarraka al maalu li cëpp solo daal dani sëriñ bi nga xam ne moo jugoon dàkkantele boppam xaadimu rasul muy alxadimu rasulillahi mi ngi gën a jamono atum saraa saraa boo ko adadee siin su toos day nekk mille raa gi nekk deux cent gi nekk soixante dix boo ko boo ko calculé ci adat mu jox la mille deux cent soixante dix bu dee da nga cee boole alif gi nag saraa kon da ngay askanoo ci ña as ña wax ni mi alif gi boo ko ci boolee kon day doon mille deux cent soixante onze taarix moom histoire yàgg na loolu wuute yàgg na ci waaw loolu mooy atum saraa euh, ci tënk. sëriñ bi euh, gane àdduna euh, sëriñ baa ngi gane àdduna ci atum mu ngi tolloog atum 1852 ci ci atum atum atum atum tubaab am nañu ni 1853 ci li sëriñ Mouhamadou Mamoun Niang wax ci téereem bi tudd jaar jaari borom Touba page numéro 4 euh, ci Nahjul Xawim li mu wax ci Nahjul Xawim mooy 1853 moom la sëriñ Mouhamadou Mamoun Niang wax ci jaar jaari borom Touba. téere boobu téere wolof bi waaye la mu wax ci Nahjul Xadim moom mooy 1852 moom la sëñ moo Modou Mamoun ña ngi wax ci. kon wax na ñaari wax yu yu wuute. waaye dafa mel ni kon mel na ni moom loolu la loolu la gën a wéral muy wax ci ñaareel ji ah, ndax nit ku ne la nga mujjee wax kon day mel ne day day day suuxat day mel ne day nasaxal la nga njëkk a wax kon lu mujjee wax ci Nahjul Xadim kon nasaxal na la mu waxoon ci téeram njëkk muy jaay jaare borom kon ba tey Serigne Khalil Mbacke tam moom mi nga wax ci madrasatul Khadim mooy 1851 daa ni am na ñuy wax 1852 Serigne Khalil loolu la wax monsieur Moustapha kon moom mel na ne at mu njëkk ma la gën a wéral moom Abdourahmane Lo moom li mu wax mooy 1853 wala 1854 moom ñaari wax yooyu la wax kon xañ na ni dë dëgërulul benn waaye nasaxulul benn waaye wax yu bëri yooyee ak wuute yi bëriwul njariñ ndax gàddaay gi rek moo ci am solo te ñëpp dëppoo nañ ci. waaw muy atum saraa moom mooy xijriya waaye atum tubaab mi gàddaay gi jëm surtout ñëpp dëppoo nañ ci kon wuute yooyu moom yàgg na ci taarix yàgg na ci histoire bis bi mu gënee àdduna loolu Abdourahman Lo rek laa gis mu wax ko euh, ci téeram boobu muy zikril mi'awiyya li nafi Sayxul Xadim nee na altine la tolloog fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom mm, ci weeru euh, Saabaan weeru baraxlu moom moom loolu moom rek moo ko indi ci taa téere taarix yëpp. waajuram bu góor um, moo tudd sëriñ Mamor Anta Sali sëriñ Mamor Habibullahi mooy baayam maam Habibullahi Mouhamadul Kabir mooy baayam Mouhamadul Kabir maam Habibullahi mu mag ma mooy baayam Mouhamadul Kabir mi ma waxoon ci gannaaw moom la ñuy wax maam ma aram maam ma aram mi ngay dégg kon sëriñ Tuubaa maamam mu njëkk mi ngi tudd Habibullahi maamu ñaareel tudd Mouhamadul Kabir maamu ñetti tudd Mouhamadul Kabir mu mag ma te moom la ñuy wax maam maam ma aram Euh, kon ci ñooñu la safoo askan woowu nag boo ko toppee dañ la yóbbu askanu baayam dañ la topp yóbbu ci gàddug naar gi ñu wax aalu mu di nan la euh, boo demee ci irwaaw na dem suñ Modou Lamine Diop Dagana mi ngi wax naan sama xarit benn wóllëre mos na maa nettali ni naa dégg ci Serigne Touba muy wax naa muy waxtaan ak kenn ba tudd ak gàddu gu nekk ci aalu mu la sëriñ bi ni leen ñooñu de ñooñu de ñooy suñu mbokk bay tax te ñooñu ay surafaa lañ ay sërif lañ kon sëriñ bi moom wàllu baayam ask sërif la wàllu ndayam itam sërif la kon sëriñ bi fa sarifun umman wa aban sërif la ci baay sërif la ci nday maam aram moom moo sañcoon Mbàkke Bawal maam aram moomu moo sañcoon Mbàkke Bawal ci atum 1192 atum saq saqdadin boo ko àddadee dalay jox 1192 ci atum gàddaay gi ku ñu wax euh, buur bi ñu wax Amar Ngoone Sabel moo ko ko dogaloon waaye taxul mën faa dëkk moo taxoon mu dëkkal fa ab taawam bu ñuy wax Mouhamadou Farimata loolu euh, mi ngi ci irwaaw na dim bu sëriñ Mut Lamin Jóob Dagana waajur mu jigéen mooy soxna jaariyatullahi Buso sëriñ Mouhamadou Mamoun Ñang nee na Mariama Buso la tudd ñu koy woowee noonu jaariyatullahi xaw ma nu ko tubaab yi di waxee xaw ma laa xaw ma xaw ma lan dëjë euh, ku dëkkaale ak yàlla dañ koy làkke noonu waaye mooy ku dëkkaale yàlla arab bi muy tekk yaram mooy dëkkaale yàlla loolu nag laqab la laqab mooy loo xam ne dañ koy woowi mu yëkkati darajaam baa mu suufeel darajaam ni ki xaadimu rasul asadul asadul diin samsud diin loolu lay laqab ci naxu kon laqab la ci moom dàkkantal la ci moom waaye sëñ Modou Lamine sëñ Modou Lamine nee na mi ngi tudd Mariama Bousso takk gi mu takk woon ci wàllu jaamu yàlla ak farlu ci nag moo tax mel ni ku dëkkaale yàlla moo tax ñu tudd ko jaariyatul jaariyatullaahi soxna jaara nag askanam mi ngi bokk ci tukulóor yi nekkoon goleer ci Fuuta Tooro ba tey moom sërif la ndax askanam bi ngi ndayoo ci sayduna xasan doomi sayduna aliyu karamallahu wajhahu moom soxna jaara waaw kon nga xam ne sëriñ Tuubaa ci ñaari ñu sell la bawoo ci ay surafa la bawoo ay ndeyam waa kër ndeyam ay sërif lañu waa kër baayam it ay sërif lañu te loolu moom lu wér wér la euh, ñëpp maase nañu ci kon euh, wax dëgg yàlla ñi bawoo kon euh, ay takk ndeer la ñu bawoo na ci ñu sell daal ñoo xam ne kon ku ne xam na ni bu bawoo ci ñaari ñu sell itam kon lu sell rek lu sell rek mooy booboo ci moom. jërëjëf Cheikh Saliou ci tontu lu am solo loolu te leer ni nga ko waxee rek euh, sëriñ bi mi ngi jóge ci ñaar yu sell lu sell nag moom ku ca jóge looy mën a def lu dul sell rek wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi kon ñu ngi lay sant bu baax di dellu tam ci laaj bu am solo mooy euh, ku wax ab sëriñ rek di nga wax jàng ak jàngale. ñu bëggoon nag ñëwal ñu ci njàngoom sëriñ Touba ak njàngaleem. jërëjëf sëñ Lamine ci tomb boobu kon kenn waxul ci ñaata ci la sëriñ bi tàmbalee jàngum alxuraan waaye euh, xam naa ni ci waxtu wu teel la ndax nee nañ ba muy jël wirdu xaadar fukki at ak ñaar lay war a am moom sëriñ bi te booba fekk na mu mokkal alxuraan ba muy jël wirdu xaadir fukki at ak ñaar Eh, lay waraam moom Serigne Touba te boobu fekk na mu mokkal alxuraan kon xañ na teel naa dal lool waaye at yam dale na kenn kenn kenn taarix wax dégguñ ko ci taarix ci téere yëpp nijaayam lenga ju ñuy wax Serigne Mbusoobe moo ko dalal ci li Serigne Mouhamadul Mamoun ci li ci li Serigne Mouhamadul Amine Diop Dagana wax waaye tuuti la ko jàngal eh, joxaat ko ku ñuy wax Tafsir Mbacke Ndumbe Serigne Tafsir Mbacke Ndumbe mi nga xam ni nijaay yi soxna jaare lenga la Tafsir moomu. Eh, jamonoy noor Mbàkke Bawol la daane jamonoy nawet ah, mu nekk ak sëriñ bi Jolof mooy jàngal sëriñ bi ba mu toll la taji danna asa danna si ah, ba fa tollee ah, ci la faatu moom moom moom tafsir moomu moom moom moom ma maam nijaay soxna jaara jooju sëriñ bi dellu ci kër Maam Mor Anta Sali di fa àggale am njàngam alxuraanam ci waajuram fa la àggalee kon njàngam alxuraanam ba mokkal ba bind kaamil def liñ ñu war a def beqee ci aju bi mu àggalee alxuraan ci la tàmbalee di jàng xam-xam niñ ko xamee ba jàng lu bari ci moom ci kër maam Mor Anta Sali itam wax nañu ni xel bi xel mi yéem na lool dafa farlu woon am xel lool moo xam ne yéem nañu bari bari xel mu xel mu doy waar wax nañu itam daana def ay bayit ay bayit daana way ay saddi way di ko yët xaay di ma jaxati kala xaay yi mooy bàyyi sëriñ bay jaxati mii eh, ku déggoon a arut la ak ak sew sewi làng arab déggoon ay xam-xamu daana waxoo sax naan an wal aruudu wal bayaanu allamani asraaruha moom xaayit yi sëriñ bi na sëriñ bi daana bind ay biir daa ko mi di ko toppal ah, léeg mu am yum ci jubbanti jubbanti aruud bi ba naxu bi ba inrab bi léeg-léeg nag mujj moom dani ko day indi may mokkal waaye lii gisatuma lu ma ciy lu ciy jubbanti mu ne ko al amru fil hifzi laa fi tasxiix mbir mi li ñuy mokkal la di ko jariño waaye du li ñuy jubbanteeg Euh, ba tey waaye nag sëriñ Mouhamadou Mamoun Niang nee na sëriñ Touba musta laxas benn yoon di jàngi ndax euh, fu mu nekkoon fi la ñëpp daa laxas daa jëm si fi mu nekkoon dafa nekk dafa nekkoon al maqsadul almi muy kër Mamor kër Mamor Sall Mamor Sall dafa newoon fóore ci jamono jooja kon ni nga xamee nii jamono joo gis rek ndaw ñi dañuy dënmal fenn am na jamono mbul kayel bu si ebi bu xewoon na fi loolu ay jamono ñi daanaka borom xam yi ngay dégg classement Abdourahmane Gueye ak suñu affaire ñëpp rek ñoom kon ni mbur la mbur jamono jooju xamoon nañ ko ba tey Fass ay jamono ni nga déggee mi xew ci suñu jamono yi Daaru Musti it noonu kokk it noonu waaye yéen sëñ Modou Mamoun Niang loolu wax nee na Serigne Touba musta laxas benn yoon di jàngi fenn ndax fi mu dëkkoon kër baayam dafa nekkoon jublukaay boo ne ku jug di jàngi xam-xam ngay ñëw fi ngay jàngi see ci biir njàngam moomu demoon na euh, ba ñu bëri ci dongay Mamour Anta Sali ci sëriñ bi lañ gën a xayma ma jànge ngir leerug làmmiñam ak fasaaxaam te sëriñ Mamor eh, nee nañ daa xawoon a bar lool xañ na bar gi nag bar moom xañ na mu doon bind wala xañ na maanaam mbooloo mi bëri baax ndax suñ ko ñun ñi suñ classe gi di jàngale ay majaalis dañ ci xam dara léeg-léeg bu koy nekkee fee yor maqaama kay yor xalil lu man ñeent fukki nit wër la xañ nga doo fa nekk di doo gàttañ lu ci maana doo ko bëgg na waaye xañ na doo mën di diibal tuuti ndax boo ko defee ba muy tuuti eh, jant so jant so ak yow waaw kon waaye nee nañ xaadi nee nañ sëñ Mamour daa xawoon a bar nee nañ ba tax na sëriñ bi xelam mu mu doy waar ak fasaaxaam donga yi newoon ci kër ga sax ci sëriñ Touba lañ gënoon a xame ma jànge wax nañu ne Mamour itam daana ko jàngal bind boo xam ne ka ko war a jàng ñëwagut ngir bu ngir xam ne day dem fenn bu kooku ñëwee sëriñ bu jàngal ko nga xam ne xaj na sëñ bi sax téere boobu dafa toll wala bind boobu sax waru koo jàng waaye Mamour da koy jàng ba tale ba tale ko borom bind bi ne ko bu ñëwee nga tëralal kooku xam nga loolu it doy waar la te moom sëriñ bi sax tullul foofu Euh, loolu sëriñ Mouhamadou Amine Diop Dagana mu ngi koy wax ci Irwa Nadim euh, ci diir boobu ci la taalifee yenn téere yi kon nga xam ne diir bi ñuy taalif téere fekk na weesugut di jàng jàngale lu mel ni Mawahibul Quddus euh, mi nga xam ne Ummul Barahin bu imam Sanusi la ci way ci taw tawhid ba tey moom ci jamono yi da ko taalifee am na ñu ne mu ngi wax ci tarjumaan ja ma Ummul Barahin daa nekkoon téere boo xam ne moom dong lañ na jàng ci taw tawhid léegi mag ñi am na ko ñuy wax alaaji saaj mu ngi koy wax ci tat biir wala fàtte mi ngi wax naan ñenn ñi taalibe dañu ñëw sàkku ci man ma wayal leen umul barahin te leeralaat ko ah, fe teqale ko ah, ma teqantal ko ma wayal leen ko nee nañ ka ma ka ma daan jàng ko doos nee na kooku mi ngi tudd alxaaji saaj kon Saalum góor googu moo ñëw doon ko sàkku ci moom kon diir boobu ci la taalifi umul barahin nee nañ sax sëriñ Mamoor Anta Sali jàngal na ko ñaari doomam ku ñu wax sëriñ Seex Coro ak sëriñ Afiya ba tey ci la taalifee al jawharu nafis mi nga xam ne wasaru si wow muy al axdari te abdourahman al axdari taalif ko moom la jël way ko way ko yu am solo ba tey la ko taalif ba tey mu layinu sudur mi nga xam ni nee nañ azhabul ibris bu imam moom la moom la jël way ko te gannaaw gi mu ko soppi ko tuddewaat ko mu nawir sudur ba tey ci jamono yooyu diir boobu ci la ko taalif boobu bépp mu ngi ci jàng moom mi ngi ko waye mbàkke bawal wala am na ñu ne daaru salaam am na ñu ne déedéet daaru salaam da ko faa doo ko fa yeggalee waaye Mbàkke Bawol la ko la ko tàmbalee. nee na ñi itam daana dem Njaañ ci benn naar bu ñuy wax Muhammadul Yadaali bokkut ak Muhammadul Yadaali Daymaani moom mu defoon Az-Zahabul Ibris kii meneen la. daana fa dem di fa jàng ci moom bayaan bayaan ñu jàng euh, euh, balaaxa laf la ci balaaxa ndax balaaxa ñett ko seq muy bayaan ak maani ak ilmul badia boo ko boolee moom la ñuy wax ulumul balaaxa dañ daana ko jàng ci naar boobu ñu wax muhammadul al yadaali moomu ak mantiq mantiq dafa xaw a dëppoo xam-xamu falsafa xam-xamu philosophie daana ko jàng ci naar boobu ah, ah, naar boobu ah, nekk naar barabam mi ngi mi ngi njaañ man siyaare naa ko foofa ca njaañ barab bu dee waar la ba tey nit ñaa ngi dem ni ko siyaare diir bi bépp nag sëriñ tubaay yéeme na lool waaye weesuwul jàng ak jàngale ak taalif ak jëfe xam-xamam ak waaye nag déggal Maam Mor Anta lool teg ci diir bi yëpp teewul ni wax dëgg yàlla kilifteef gi mu ngi ko doon wéyal sëriñ Basiru wax na ci lu mel noonu euh, déggal ngum déggal maam sori ci jamono yii boo demee ci minoon ba alxadim page 46 sëriñ Touba mës naa nettali ni sàmbalaw bi Njaay mi nga xam ni euh, euh, moo mujj ci buuri kajoor yi mës naa ñëw ci sëriñ Mamor toog ak moom ci kaw lalam daal di koy woolu sëriñ Mamor yable ñu woo ko ñu woo sëriñ Touba mu ñëw mu ne ko sàmbalaw bi mi ngi daa bëgg nga ànd ak moom dem ci këram mu jàppale ab sëriñ Euh, nga mel ci moom ni ma mel ci nijaayam Lat Joor euh, nee na sëriñ bi ni ko waa baax na ba mu génn hmm, baax na ba mu génn daal di dellu ci néegam moom sëriñ bi bi sàmbalaw bi génnee fekk fekk ko moom sëriñ mu toog ci der di jàpp euh, sëriñ bi wàcc jox ko jox ko ko ngir mu daarante ngir mu daarante ak sàmbalaw bi waaye nanguwu caa toog moom sàmbalaw bi mu tàmbali di ko waxaat wàllug dem gi wàllug dem gi ko wàllug dem gi gi ma xam ne ko waa baax na bañ génn Euh, sëñ bi ne ko xalaatuma dem di fi bàyyi ñii nga xam ni dañu fiy ñëw ngir xamlu ngir xamlu seen diine hmm, mu ne ko xalaatuma dem di fi bàyyi ñi nga xam ne dañuy ñëw ngir xamlu seen seen diine boobu sëñ baa ngi jàngale boobu euh, jotagut risaala ba ñëwoon ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat boobu moom moom mu ngi ci dars yi waaye nekkatul nekkagut ci tarbiya bil himma gi mu ne ko waaw bu fekkee loolu la euh, Samba Law bi ne ko bu fekkee loolu la lii aw naaru góor la bu baax maa la ko jox mu jox ko ko nee nañ sëriñ bi jël ko ngir maslaa ngir mu daarante waaye ah, surtout jaaxir suñu tubaab mi ngi naan ñett ñii moom jëruñoo wan sa daraja jëruñoo wan sa jër loo mënta am jër bu leen ko wan muy waajur wala jur démb tey dooru ñëw ak borom xam ak buur bu saay-saay ak buur buur ak kilifa aada buur mu ne ñett ñoom jëruñoo wan kon waaye seet daan mu daarante ak buur yi bi mu demee fekk ah, ba mu ko joxee naar gooyu ñu ko lii mën nga ko jël bi mu demee sëriñ bi nee na fekk am ñett ñu ko topp ñoo xam ne ku ci nekk amel na ko bërëb téeméer moom sëriñ bi nee na ma ma téye ma téye leen ma téye leen ci kër ga jaaylu naaru góor wa ñetti téeméer ñu ma séddale leen ko euh, ñu sant lool. kon ci biir nettali bi bii na nga ci xamee ni lu bari ci déggal gu sëriñ bi déggal Maam Mor Anta Sali ndax noonu mu njëkk noonu mu noonu mu njëkk a tontoo euh, ci kanamam du dara lu bañ koo déggal ko naqari ak bañ a wuuteeg ndigalam. ndax dañ ko waa baax na mu génn waaye ku ne xam ne ni li ko wax nee na ko du ma génn duma dem fenn di fi bàyyi ñi ngi ñëw di sàkku di xam lu seen diina kon ni nga ci xamee itam ay tegginam yu bari gannaaw loolu euh, sëriñ Mamor nag euh, euh, gannaaw loolu di jiitu muy nelaw ñaari at ci la sañcee Mbàkke Kajoor waaye yàggu fa ñaari at la fa def daal di nelaw kon daanaka taarix bii téere yi sax bu ñu jàngalee ba ci diggante bii lañ fay sof rek mooy nelaw ak Maam Mor Anta Sali kon di jiitu lii la sëñ bi Maam Mor Anta Sali Kajoor waaye yàggu fa ñaari at def daal di làqu wuy ci boromam dem ci ilaa jiwaari rabbihi rahimahullah wa radiyahu jërëjëf Serigne Saliou ci tontu lu leer lu am solo loolu nga tënkal ñu ci rek njàngum Serigne Touba ak ak njàngaleem andi nga ci sax lu am solo loo xam ne nii maa ngi ko bindoon bëggoon la ko laaj muy téere yi nga xam ne jot na ko taalif ak ci lan la ko taalif loolu tam dikk nga ci lu am solo kon mbokk yi rek ñoo xam ne Serigne Touba téere yi nga xam ne moom la taalif te ko taalif ngir ñu xam lu ko. ta yim njëkk a taalif mawaahibul qudus jawharun nafis mu layin mu mu nawir masalikul jinaan tasawudu shikhaar tasawudu subaan subaan yëpp ay téere yoo xam ne nii dañ ko war a jàng xam ko di ko jëfe ndax àdduna dafay dafa nekk lu mel ne li ñuy wax saraab am mirage loo xam ne nii day mel ne ndox te boo demee doo fa fekk dara njundox lañ koy wax ci wolof njundox léegi nag ñàkk jàng xam xam-xam ñàkk jàng si diine lu muy waral mooy da ngay topp ci course boobu ci àdduna di course di course te njundox kuy course moom doo da ngay course ba faatu rek waaye doo ko mas a jàpp xam-xam bi nag lim lay xamal mooy da lay démystifier loo àdduna da nga koy daal di teel xam daal di ciy teel a jël sa ay précaution loolu la jàng di yariñ moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne yaa ayuha shubaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen waxambaane yi maa ngi leen di laabiire bala ngeen a euh, na ngeen na ngeen jàng bu ngeen bañee ragal bu ngeen ba bañ a am gàcce ëllëg na ngeen jiital jàng bala ngeen a jëf kon muy lu am am solo kon sëriñ bi sëriñ Saliou maa ngi jeexale rek fi nga daaneele soof ci laaj bi ginnaaw bi nga xam ne ni sëñ Maam Mor Anta wàcc na liggéey yàlla na sun yàlla na ko sun borom dolli ay leer euh, naka la demee woon maanaam sëñ sëriñ Touba euh, lan moo xewoon gannaaw bi nga xam ne nii way juróom bu tedd woowu génn waaw jërëjëf Serigne Lamine ci sa laaj boobu euh, kon sëriñ Touba euh, li wolof di wax naan léeg-léeg ñu naan euh, diw daa teel sotti waaye sëriñ bi it bu ñuy wax dañ naan ku teel a sotti la ndax teel naa wan ñim jamono teel ni man am na fa may diir fu bokkut fu ngeen di diir am na fa may jëm fu bokkut yoon wi ngeen sóobu booy nettali ci booy boo yëree mi na du bal xarit mooy dégg Serigne Bassirou di wax naan Serigne bi ba muy gën a nekk tànk. lañ gisoon ci moom ñu bëri sax jàppoon ni kii euh, du ko ànd kom xalam nee nañ jamono yi gën a nekk tuut tànk ku ko musaa togg ci gannaaw jigéen ju ko li ñuy def di ko jigéen def tu tànk togg ci gannaaw bu musaa romb barab bu ñu fawee da ngay dégg muy jooy yooyu métti di yuux yuux yu méttee métti kon dëgg yàgg naa feeñal ay xar baax yàgg naa jaaxal ñim jamonoonteel tiir ndawam la bu sayri doon tagg yoon tamit naan alifan muska wala ibadata wal xalwata tiflan wa hëkkasa nujabaawu ni yonente bi ba mu tànk ci daa xamee ak jaamu yàlla mu saf ci ruwam saf ci xolam ak wéet ak beddi ko suñ tubaab nee nañ diir nekkatu tànk yëpp daawul nangu tëdd fi fi ma soxna jaara daan daan naafile rek fa la daan fa daan fa la daan tëdd kon nga xam ne ku teel a li ñuy wax ne ku teel sotti kon loolu la kon teel naa wan ñi mu jamonoon teel ni man am na fu may diir fu bokk te fu ngeen diir tey loolu ku ko defee du ci ëpp rek doo neexoog say mbokk doo neexoog ñu nga jamonoon teel ku la wedd laaja Seydina Ibrahima ba mu jugee bëgg a sos bees ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak ñeneen ak ñeneen kon sëriñ Maamoor ni ma ko waxee léegi euh, taarix bi moom ni ñuy faral di toftale mooy ginnaaw loolu la sanc Mbàkke Kajoor waaye ñaareel la fa def daal di wuy ci boromam ginnaaw bi maam moo sëriñ Maamoor nag mi ngi nelaw ci tamxarit muharram atum 1300 hijriya tolloog 1880 ci juddug Seydina Isa alayhi salaam muy atum tubaab bi muy nelaw moom bi muy nelaw moom Maam Mor fekk na sëriñ Touba euh, sëriñ Touba ñëw na ba ci wetam ba ci wetam ba ci peggam tari alquran alif lam mim baqara ba naasi ah, da ko tari ci peggu ci ci pegg bi mm, guddik talaata muy altini ci guddi la nelaw moom Mamor Anta loolu sëriñ Mahamadul Amin Diop moo ko wax ci Irwaaw Nadim page numéro 24 ah, ñu rob ko deqale deqale fa lañ ko fa lañ ko denc ku ñu wax Tayba Mohamed Numbe Maar Silla moo ko moo ko jullee bi mu ko jullee ba noppi nee nañ mbooloo mu woon lool raj raj loo bëri woon lool sëriñ bi sax da doon mi ngi dox jëm ci ànd ci ci waajtaay wi nee nañ am ñuy ñëw jox ko naaru góor ne ko waral fii mu ni leen baax na ah, gënal naa u faddilu ah, sayir yaa xadamay ya tey rek maa ngi fàttaliku dars am na ah, iraw na dem daara ji dañ ko fay jàng tey rek yaakaar naa bind boobu am na ko fa jàng ci eh, di wax kii bii rek tomb bii rek am na ko fa doon jàng ci eh, tey ci tomb bi daanaka am na ko fa jàng waaw sëriñ bi ni ko kon danaa gënal doxal samay tànk ci kon loolu lépp war ma war ma ak war ma ak teggin la bañ jullee ba noppi mbooloo mbir lool Tayba Mouhamed Tayba Mouhamed Numbe Marsil la euh, ni mbooloo mi euh, mu woo mbooloom bañ nopp euh, bañ daje mu ni leen ngeen déglu ma am lu ma leen lu ma leen lu ma leen lu ma leen àgge ma am lu ma leen wax bala ngeen a dem daal di jaale ñëpp daal di ni daal ni ana sëriñ Bamba ñoom sëriñ sëriñ Bamba lañ ko daan woowe mu ne ko mu ne ko maa ngi nii mu ni ko jegesil waaw mu ne ko jegesil sëriñ Touba ni ko maa ngi dégg lépp ngir bañ a xëttu mbooloo mi ak tegginam mu ni ko damaa bëggoon buñ jógee fii jaar ci Lat Joor Lat Joor moo ne woon ci jamono yu buur ci jamono yooyu mu ne buñ jógee fii jaar ci Lat Joor nga fasanteeg moom wóllëre wa sa baay fasante woon ak moom mu teg la fa mu tegoon sa baay te loolu dana baax ci yow lool sëriñ bi. sant ko ci li mu wax waaw euh, ni ko waaw euh, ni ko ni ko bu dee jaale gi danaa ko man ni ko waaye dem ci këri buur ngir daray àdduna jomm naa loolu bi sëriñ bi waxee lii ñu bari ci mbooloo mi ñi def ñaar ñu ne ah kii de dafa dof <laughs> waaw ñii ne ah kii de kii daal mën li wolof di wax léegi rek mu am kii de moom ci misaal ñu ne ndeyam liggéeyut wala kii daal daan naa ta tekk hmm. ñu ni kii dafa dof kii dafa dof googu ma waral xaaloo safihun googu nee nañ damaa dof li sarfi anhuma basari ngir wëlbati gi ma wëlbati sama gis jëme ko ci leneen muy la yàlla bëgg ak li yonti bëgg xaalu safifun googu moo ko waral ba ba mujj gi mu naan alhamdulillahi in kaanat safahatuna idaamatul wirdi wal azkaari wal fikari maa ngi sant yàlla nag ndokk ba sama dof gépp nekkee saxu wird ak jàng alxuraan ak saxoo xalaat ci kéemtaan yàlla yi alhamdulilah in kaanat safahatuna idaamatul wirdi wal azkaari wal fikari waaw geneen xaaloo gi ñaar la genn gi moom dañuy xaaloo li yarkan li abwaabi salaatiin yi jamono yi la ko wax taxus jawaïsa tuxni kullama xiini fa xultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya xayra alcalmi waddiini wa lastu a arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxniini wa yunjiini mujj ga ba mbay dem banaa ah, dem banaa di wax naan in kuntu za watirin aw kuntu za ajalin daxawtu zal ayni qabla arraa'i wa siini misal ars ah, ba xasida gi jeex di wax ni nit ñi ñi ngi mën ñi ngi mën a demal ci bunt buur yi kon na nga am loo jàpp waxtu wu ne ma ni leen yàlla suñu borom doy na ma te doyloo naa ko xas bi xas bi rabbi wa tafaytu bihi yàlla suñu borom doy na ma te doyloo naa ko bëgguma lu dul xam-xam ak diine ragaluma ku dul sunu sama boroom yaakaaruma ku dul moom bu ma soxlaa mooy ko may mooy ko koy faj waaw waxul muinul ah moom la wax ni ah, in kuntu zaawati ak kuntu zaa ajalin daawatu zal ayni xabla raay wa siini waxul mu aynu lazi laa say ay yujizuhu waxul mu kawinu maasa ay takwini waaw mu ne ba ko xam ne daal nit ku gëm boppam ku gëm ay principe principe boppam te gëm boppam ci ni ñu ko mën ginnaaw lii nag ah, ah, ginnaaw lii nag la nit ñi gën a jaaxle ci mbiram waaye teewul mu ngi jàngale ni ko daa defee ci jamonoy Maam Mor Anta nit ñi nag euh, mbooloo mi ku ci nekk ak la ngay wax ñi naan dafa dese ñi naan ah kii di daa bëggul lu baax waaye moom wan na leen ni daal euh, li ñuy diir ñoom diiru ko li mu bëgg itam fu mu jublu itam bokkut ak yoonu ñu soobu loolu la sëñ Moussa Ka di wax naan ba xaadi moom jaxate naa ko irkan jàngal te jëm ci bunt buur yi cay kon Seex Bàmba naa ko xasbiyal ilaahu dëhëran wala ilaha illallahu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maa àndakum yan fadu jàng naa naa ko Ah, billaahi man alal du tax ma jeng jàngal ma saaru xóodi kon doo jeng naa ko billaahi tallaahi xanaa yow xalamoo laa tarkanoo illal lazina zalamoo <laughs> waaw di di di ko wax wax yooyu kon nga xam ne loolu daal jamono yi maam warante say làqoo kon sëñ bi am lu ñu wax naan identité de at bi ñoo dàkkatale xaamul usni xaamul xusni mooy at bi nga xam ne ci lay xari jafaatoo ak euh, abdu ak abdu mutalib bàyyi ta xam nga xam ne ñaar ñooñu ñoo ko daroon waaye ba maam membre sëñ Fatou itam sëñ bi mën nañu bu doon kuy rë kuy kuy kuy rët wala kuy kuy jaaxle kon kon xaamul usni la ci moom ndax ñàkk na waajur te it coow topp na ko mam bu topp ko kon at mu doon waar la ci moom. jërëjëf sëriñ saaliw ci tontu lu am solo loolu kon rek euh, loolu moo nekkoon euh, question bi ci mujj kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa disponibilité ba beneen yoon incha allahu kon yéen mbokk yi nga xam ne nii yéen a ngi doon bàyyi xel seen web TV Al Azhar Touba. loolu moo nekkoon seen émission à l'académia di spécial màggal euh, ñu doon woo boroom xam-xam yi am ay thèmes yu am solo ngir santale ko Serigne Touba ci bisam bu tedd bi euh, di bisub màggaluk Touba. Euh, di leen fàttali rek na ñi ngi ànd ak sunuy sponsor muy Kool Touba Kool Touba di compagnie boo xam ne nii kéem ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi lépp lu jëm ci crédit nit mën na ko jëndal ak foo mën a nekk ci àdduna bi kaneen ak fu mën a nekk ci àdduna bi mën nga toog à travers l'internet ak kooltouba point com c a l euh, t o u b nga jëndal sa ki nga bëgg jëndal moo xam sa wayjur la sa rakk sa soxna ba ci sab sëriñ crédit euh, bu leen ko tam Euh, dégg noonu rek waaye na ngeen ko essayer ndax togg bala ngaa xam neex na il faut nga essayer ko boo ko essayer nag ba xam jafka ga doog a mën a continuer moom ndax moo ñuy jàppale ci mbooleem yi nga xam ne nii ñun dinañ ko soxla soxlawoo ci sàmm xam-xam ak tasaare xam-xam kon képp koo xam ne ni amoon nga yéene ci Al Azhar rek man nga jëfandikoo kóol Touba boobu day mel ne dimbali nga Al Azhar Touba loolu kon mbokk yi moo nekkoon seen émission spéciale màggal di leen dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر